mu xamal ni sax am na ay contact ak entraîneur bi di Aliou Cissé nga xam ne ci jamono yi moo yor équipe nationale bu Sénégal Aliou Cissé sax yoroon Ousseynou Thioune ci équipe nationale olympique bi donte sax lu saa su ne la ñuy faral di déggante. rêve possible mais le loo gis. Euh, mën wax ne que da nga étape étape par étape eh, là parce que coach bi xamna xamna ma nekkoon naa capitaine pendant 2 ans yoroon na moom yoroon olympique ah, coach Aliou Cissé donc du coup yaakaar ne ko mom xamna bu baax mais le mais Sénégal muna wax ni que ya bari ay ay joueurs donc ñëpp mun ñëw sélection donc lu ñu def moy coach bi choisir euh, les meilleurs actuellement du la nekk def muy choisir les meilleurs yi nga xam mom la yaakaar que muna na apporter dara donc yaakaar naa ni que moom coach bi mën nañ ko bàyyi mu def liggéeyam